waaye am na ñoo xam ne dañ laa tëkku ci mbir mi mu doon ñoo xam ne ay Sénégalais lañ am ñoo xam ne dañoo bokk ay kilifa ay famille religieuse tey jii nii euh, euh, ñooñu la nga leen wax pour rassurer leen pour xam leen ne tey jii nii euh, yëf yi maanaam làmmiñ bu bu jàdd la rek mais du loo xam ne vraiment sa xol la jógee waaw bu ñu ma tëkkoo moom dama leen di bàyyi ak suñu borom subhanahu wa taala gis nga sëñ Modou man du ma tëkkub téere du ma naan saafara parce que yaar yi dama ko bàyyi yàlla muy sama wërsëg ak sama fan kon ku may ku may tëkku rek dama lay bàyyi yàlla loo def loola baax na di leen sant nag ca tëkku ga ñu tëkku parce que day tax ma gën a góor góorlu ngir gën a jub xam nga nag mbir mi dafa am ñuy raas déem ak ñuy ñuy ñuy ñuy gàmmu mm-hmm. am na ñoo xam ne ñii gàmm mooy euh, wax ji naqari leen ndax seenu tonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. moo tax ñu doxale ni ñu doxale ñooñu même bu ñu ma tëkkoo baal naa leen tëkku ga te xam ne tëkku ga nag du sotti lu suñu borom da cee d'accord ak ñoom mhm. ñi nga xam ne dañuy raas de maanaam dañoo profité ci wax ji dagg ko ngir yàq sama der ñooñu aussi baal naa leen maanaam dañ ma soññ ba ba ëllëgee ma gën a góorlu li tax may gën a góorgóorlu nag mooy est-ce que nekk nga ci position di baale est-ce que waroo baalu rek non non non damay baale di balu parce que non xam nga jullit moom day bale d'abord doola balu mhm. man bu may balu bu may bale rek da bu may balu damay damay bale door a balu parce que loolu jàpp naa ne moo gën di teggin kon encore une fois mhm. ñooñu nga xam ne dañ ko doon dagg di ko génne mhm. pour xëy na ñee da leen li ma wax yoon li ma wax ci yonent bi moo leen naqari sallallahu alayhi wa sallam ba ñu waxee noonu ñooñu maa ngi leen di maa ngi leen di balu ñi nga xam ne nag dañ ko koo def ngir yàq ko ñooñu aussi maa ngi leen di baal di leen balu encore une fois ñi ma en li ma soxla daal mooy na jullit yépp xam ne li ma wax jubluwuma ci maanaam njuumte la maa ngi balu àq maa ngi baalu yàlla xëy na sama tur wi Moustapha la sa sëñ Cheikh moo ko tànn mm-hmm. waaye nag su fekkoon ne fonk ma yonent bi sallallahu alayhi wa mu rawa taw du ko tuddee taw la ko tuddee. loolu dañuy yóbbu ci kàddu yi ak njumte la rek. xam nga su xam nga koo fonk koo fonk rek di tuddee sa doom. Mm-hmm, mm-hmm. surtout taaw. ma tuddee sama taaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad parce que non seulement dama koy def ngir sargal yonent bi waaye nag damaa bëgg barkeelu ci yonent bi ci jikko ci jikko yi ne ci moom mu ne ci sama doom ji. kon kay nit bu fekkee da ngaa bëgg jikkoom nekk sa jikkooy doom wax dëgg yàlla kooku boo ko waxee loo xam ne maanaam rafetul mais loolu njumte rek la ma a ah, leneen lu metti nit ñi mooy contexte bi nga ko yëkkatee maanaam danga nga ko dëkkale ci loo xam ne euh, maanaam du du rafet maanaam comparaison bi nga indi ak fay yi doon évoqué avant ñoo àndul ñu bëri am mere la ci loolu xam nga sëñ du wax dëgg yàlla yàgg na ma yëkkati kàddu mm-hmm. kàddu ga di ci sàkku ci yàlla mu di ma dimbali muy nekk dëgg di ma dimbali ma di ko wax ci teggin di ma dimbali ma di ma di ko am njariñ jàpp naa ne bu may ba ma tàmbalee di yëkkati kàddoog léegi waxaguma fi aw tooxi doona mm-hmm. maanaam waxaguma fi nit ñi teg seen loxo seen gi mi lii mi ngi door am nañu jàpp ne man de damaa jàpp ne man damaa juum mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom laa ko séqit nag nañu jàpp ne damaa juum te nag juum moom ku dul yàlla subhaanahu wa taala rek mën na laa dal mm-hmm. kon ginnaaw juum naa maa ngi jéggalu yàlla subhanahu wa taala ci njuumte li mhm. ginnaaw juum naa loo xam ne julli ji naqari na maa ngi leen di balu ak ñoom julli ji d'accord bi ci mhm. maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun julli yépp